Mr Soane 2026 presidential election ñëw na ñëwagut waaye euh, defe naa ne election duñ xaar ba mu ñëw rek euh, ñu doog cee wax wala ñu doog koo waajal defe naa ne election préparation bi election dafa laaj laaj lu bare bare bare xëy na duñ duggagum ci biir a biir a biir but euh, ci lu ñu njëkk ñëw rek mooy UDP 2021 presidential election yi nga xam ne dafa passé UDP dafa am ñu bari ñoo xam ne yaakaaroon nañ ne UDP mun naa win li nga xam ne mooy elections yooyu ndax bu ñu wàllu crowd bi dafa Matam euh, suñ daan demee nu ñu dee pull out crowd euh, waaye 2021 election yooyu mu doon ba mel ni disappoint la ci many of UDP supporters wala ñoo xam ne sax ay sympathisers lañ woon soo ñu war a demaat nag ci yeneen election muy 2026 presidential election euh, wax duñ wax tey ci waxi flag bearer loolu jotagut xëy na but lu ñuy dikk rek mooy. ndax UDP after that uh, shock laa ko mën because of 2021 presidential election UDP ñu ci bare bare bare amoon nañ hope ne ñu ci election si rek moo ko uh, but after result si nu mu demee uh, dañ gis ne camp bi la mo moo ñoo win ndax ci diggante yu bari xewaat na fi gis nañ tamit élection yi xew bot ndax UDP tàmbali ngeen di waajalaat di prepare uh, am ngeen système bu bees bu ngeen jël ndax ñu bari jàpp nañ ne crowd bi dañ leen nekkoon di di deceive, disiif te xëy na bàyyiwul leen woon ci xel trop trop amna na itam yeneen mbir yoo xam ne uh, am na ci yoo xam ne xëy na uh, ndax jàngaat ngeen ci bu baax baax te yéen a prepare bu fekkee jëm nañ ci presidential election 2026. Um, jërëjëf um, sant naa tam gërëm naa yàlla um, laajte bi tamit dafa am solo lool. ngir ne soo gisee tey ñu toog fii. ngir réew mi la. Um, dëkk bi nag. dafa am um, an arm bu ñu ne state. so head of state bi mooy ne c'est politicien kooku lañ dee ooyee président bi moo dee taana ñu war a liggéey ak moom. so dafa mel ni réew mi lu bari um, eighty ou ninety percent su yaaxee rek xamal ne politique bi moo yaaxu so fi nga ma yóbbu noonu. 2021 uh, Uh, ban hmm. prepare lañ jël wala ndax ñu ngi prépare yeah 2026 yes um, for 2026 ñun hmm. uh, depuis 2021 hmm. musu ñoo amba um, noppaleku um, si mbirim uh, waalim politique because politique moo mel ni comme dundi nit ñi the lives and livelihood of the people loolu lañ bokka loolu lañ nekk si bés bu nekk tamit suñu guddi ak bëccëg naka la Gambia di am boppam si waalim governance boo xamante ne fa gis corruption even soo ko gis ndax measures dinañ am moo xamante ne hmm. mën nga koo xeex hmm. so lu passé si wàllum results yi hmm. comme ndax UDP dañ doon am crowd waaye I don't know the result did not the crowd did not reflect in the result um, loolu noonu uh, si ñun di crowd reflected in the result luñ um, luñ lu ñu dal loolu njàngate la um, gëm naan tamit parti bi tax jël nañ taxawaay bu rëy si loolu depuis bés boobu noonu ak tey uh, jànga nañ lu bari si loolu ñu ngi prépare tamit uh, si fànna yu bari ñoo xamante Um, uh, mitigate the, that, that, type of um, um, negative uh, impact luy gën a luy gën a uh, indil looraange si parti bi ak mm. result doomante ne loolu la gom ne askan bi dañ jëla woon so préparation bi is on high gears mm. préparation bi dafa am solo tamit nekku tamit only to protect our our votes mm. but pour ñu mun a advocate and sensitize more of electorates ndax réew mi pour mu baax nguur la pour mu yaaxu tam nguur la nguur dafa am solo lool si fànn yoo mun naa laal nguur dafa am loxo foofu noonu soo ñëwee wàllum diine bi sax nguur dafa am loxo soo ñëwee wàllum comme li ñu um, uh, wax nii sax sport bi nguur am na fa am na fa loxo so pour ñu mun a am a general well being of the country of the people pour kon dëkk bi ñu ñu gën a mit ko il faut ñu xam that responsible governance in in in place so UDP nag mosuñoo am relax si loolu bés bu nekk dañoo dañoo dem si nit ñi dañoo gën change of um, approach naka la ñoo approché nit ñi naka la ñoo engagé nit ñi dañoo tamit observe jànga si nit ñi lan mooy seen xalaat si wàllum politique UDP euh, seen xalaat yooyu noonu dañoo dem toog tamit ñu analyse ko ñu gis ne naka la war a defee ngir ne nit ñi ñoo tax yow nga nekkat ut place boobu noonu mm. so xalaat nit ñi dafa am solo lool ñun si ñun mm. xalaat nit ñi dafa am solo lool si wàllum um, suñu doxalin politique as far as our party is concerned mm. um, dañ am that principles dafa des yow ku ñoo involve naka ngay gisee parti bi waaye ñun dañoo def suñ suñ suñ suñ bes political approach pour gis ne yow xalaat bu nga amee pour ñu mun a sensé ko indi ko si xalaat UDP tax na ba léegi parti moom mu ngi amee lot of progress si fànnaa yu bari loo xamante ne misinformation la ak disinformation boo xamante ne suñ opponents si dugal nañ ko si boppa nit ñi so loolu lu bari si loolu mu ngi mu ngi mu ngi sensé so gëm naa ne fii balaa yokkute bu ñu nekk di amee tey yokkute bi dafaa gën a yokka because ah, UDP taxawaay bu ñu am mooy ne hmm. Gambie nañ am boppam doo am mun a am Gambie pour mu am boppam su fekkee ne indiloo nit ñi tamit nekk benn hmm. naka ngay indee nit ñi benn bi pour mooy ne pour nga mun a sensitiser nit ñi hmm. xalaat bu ñu xamante ne ñeneen ñi ñu ngi koo dugal hmm. ñu génn xalaat boobu noonu we debate on issues of national interest mooy policies and programmes balaa ngaa ñëw si nguur noo amal nit ñi naka nga naka nga soo soo soo so lii lañ bëgg askan bi gom ko balaa ñuy vote bëgguñu askan bila kaana buggum Gambians yi aga to the ballot box and start that kind of mindset because su su rek xamal ne it have consequences because every election soo gisee it has consequences and the consequences of which is going to be detrimental to every life of this country so moo tax ñun dañ teg na as a responsibility duñu mën a a toog ne su fekkee ne that I call it maybe I being the last person of Gambian citizens, I did get the information correctly to be best informed on the electoral decision that I should make. Because so may, so if you get it wrong, you are putting the country into a mess. If you get it right, you get in the country into a very right um, um, trajectory. So then gomne, then ligue bi would far continue. So ligue bobu non ñung ci. Euh, Luñ def 2021 um, euh, ñu bari xam ñun xam lu ñu war a def pour ñu mun a aay façon yooyu noonu xew tamit mm. parti bi liggéey na um, xaw ma euh, su su ma mënutee wax ne am nañ ko 100 percent mm. waaye around 70 to 60 percent am nañ loolu am nañ loolu lan lañ def euh, mooy ne mooy ne euh, ñu dem si élection um, yaaxaluwaa am si pour opponent bi win ñu dem si élection result bi dem in in in contrary to what we think has happened mm. so loolu yëpp ñëpp lu ko dee lu lu lu dee tax muy xew um, jàngane loolu xam neen ko um, not here to say everything that we, we are working on mm-hmm. waaye comme uh, jox yaakaar askan bi ne waaye électrode ne UDP ñu ngi liggéey liggéey boo xamante ne mm-hmm. looloo tax ne suñu sànni la UDP carte xam ne ne sànni leen ne carte mm-hmm. carte boobu noonu du du dem foo xamante ne war faa dem so liggéey bi is on progress